liggéey ak fa yeeku liggéey ak fa yeeku liggéey ak fa yeeku vraiment sax ñoom buñ fi ñëwee suñu sergent dañoo taxaw seede seen kanam ne leen ñii bu nekkee njàmbaar te kenn gënu leen jàmbaar don donc nag sonn moo tax ak ay père de famille ay mère de famille nekk fi di liggéey te duñu fayeeku duñu am lu ñu souvenir à nos parents te buñu fekkee dañuy liggéey te duñu fayeeku fan la am si Sénégal ñun loolu la ñuy laaj Sénégal fan ngay gis nit kuy liggéey di fayeeku ñetti weer est-ce que mës ngeen yéex a fayeeku wala mës nañ euh, yéex a fayeeku te boobu ba ñuy fayeeku sax deux mois la ñuy wax dañuy fay ñun ñu buggoon def ay sorties suñu kilifa dañu ko ñaan ñuy noppi suñuy njiit ñu ko ñaan ñu mooy ñu ñu liggéeyal waa eaux et ñu ko ñaan ñu noppi mais ñu dem ba nag nit boo demee ba sës si bi da ngay dem ba da ngay tàkk dootoo mënati def dara lu dul génne lu nekk sa xol moo tax ñu def suñu sortie tey waxaat une bonne fois pour ñu ko ñun président de la république ñun say ndaw ñi nga recruté mooy xëy ndaw yi ñu ngi ñaan nga bàyyi ñu xel ndax ñu ngi ñu booleel bu fekkoon ne bu ñuy wax tey dëgg la duñ jëlee si loxo waa eaux et ñi nga xamante ne si dañ ko tegoon seen loxo ñoom ñu defal ñu ay audit parce que environnement eaux et ñun ñëpp ñoo yem benn contrat bu ñu signé lan moo ñu différencier rek mooy mooy antenne kon kon defe naa ni ku liggéey war ngaa mën a am sa copie de contrat ñoom ñu ngi fayok même ñoom seen fayok mooy loolu dafa yéex liggéey ak fa yeeku liggéey ak fa yeeku liggéey ak fa